juróom-ñetti weer Macky wax naa ko makki ñaari weer ci ginnaaw la takk ay bagaasam ba ay bagaasam jiitu ko ba mu ne ay doomam jiitu leen ma ñaari weer ci ginnaaw mu ne du fi toog au le soir du 2 avril ndax bëggul gêner successeur am ba déplacer léppam ba léppam dem maison du Sénégal ba mu dëkkoon jóge na fa ci New York résidence ba mu nekkoon ca Paris juge na fa bàyyi na ko bu demee hôtel lay dal bi ma demee fekk ko palais ba ma ne ko Macky nee nañu da ngay préparer troisième mandat dafa ne ma Souleymane je suis fatigué est-ce que ku bugg troisième mandat dina yóbbu famiyam këram ñibbi na ma nit ñi bàyyi am na ku dem dinaa ko wax dinaa dinaa ko feeñal bës mais wax ko léegi. waa déedéet dinaa ko feeñal bés am na ku dem dans une chancellerie occidentale ci benn ambassadeur ci ñu ñuy ŋaññe mu ñëw ne président Macky Sall su su su ma déggee. c'est une personne institutionnellement bien positionnée mu ñëw ne Macky Sall waxtaan nag ambassadeur bi nee na ma mun nañu envisager report élection Macky dafa ne ko bu fa dellooti Macky dafa ne bu fa dellooti institutionnellement bien positionné bien positionné il est au sommet de l'État ne ko bu fa dellooti may mun a euh, xam nga at yi passé man mosoo maa gis ma seede ci Macky lu may wax du ma bëgg mu bari parce que lu ma xam moo bari te bëgguma di wax dama am responsabilité bu mag a mag may xam yoo xam ni euh, waruma am occasion boo xam ni dama ci wax may mun a xam nga fu ñu toll xam nga fu ñu toll dañu war a defaraat réew mi xam ne Macky Sall jëkkalaat toogin wi toogin nekkinu réew mi moom la wax nanu ko def nu dem élection ñu fàtte. li ma li ma dul nangu li ma dul nangu. Mm-hmm. parce que loolu jàdduwul te du dëgg te du yoon. Mm-hmm. mooy ñu accuser Macky Sall. non waxuma rek ñu accuser ko. Mm-hmm. waxuma rek ñu accuser ko waxuma rek ñu accuser ko mais ñu indi fi wax joo xam ne ña nga xam ne démb dama leen fekk ñuy défendre ne dañuy arrêter Macky dañuy arrêter Karim Wade. def une loi boo xam ne du ñu laaj sax Karim du ñu du indi preuve ñu ne Karim Wade demal nga indi preuve ñooñu ëlbatiku tey nekk dans l'opposition ñu ne dañu bugg nguur gi di ŋaññ di ñu ŋaññ di ñu xas di ñu accuser ne ñun ñoo jël ay ñu ñu ne prison yi dañu am yaay Karim Wade dafa am yaay Aïda Ndiongue dafa am yaay Mamadou Lamine Massaly dafa am yaay Aziz Diop dafa am yaay dañoo am yaay. Souleymane. donc euh, Maïmouna euh, moi xam nga je suis sans doute le moins intéressé ci wax ji man bitim réew laa nekk. mais Souleymane